solos ndaje mi moom ñëpp xam nañ ko lislaam juróomi ponk la eh, asaka mooy ñetteelu ponk ci lislaam ni ko suñu kilifa yi waxe ndigalul suñ borom la loo xam ne lu lu lu lu far la lu mënta ñàkk la eh, lii nag day loo xam ne lislaam dafa digal kilifa diine gi jiite diine ji mu koy jël ci ñi am ngir di ko jox ñi ñàkk loolu la wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xus min amwalihim sadaqa yàlla def nag ci doxinu jamono ñu dem ba yàlla dogale ci ndigalul sëriñ Mouhamadou taxa ci tawfeex ci tawfeex yi borom xam-xam yu tedd yi ñu àndal sëriñ bi joxewaat ndigal ci e, Touba ca kanam mu taxaw ngir dundalaat li ñuy tuddee kër asaka mooy moo xam meso e, baytu zakka la ko arab yi wax ak naneen waaye turam daal mooy kër asaka muy loo xam ne nag dafa war di dajale asaka yi ginaaw bi borom xam-xam yi àttee borom xam-xam yi ñu ko àndal ñuy ñu set ñoo xam ne ñëpp xam nañ ne eh, kenn xamu leen ci loolu jàng ak jàngaleeg eh, jaamu yàlla ay imaam lañ ay ñu ñëpp xam nañ ci dëkk bi ñu spécialiste ci wàllu wàllu wàllu sariya ñoom nag la ñu àndal liggéey bi nga xam ne ñoom ñooy jiite liggéey bi liggéey bi Touba ci kanam moom moo koy jàppale waaye borom xam-xam yi ñooy àtte ci asaka nan la war a ñëwee ak fan la war a jóge ni ko yàlla séddalee bu ñëwee ba agsi ñoom ñu wax ñu ko ni ko yàlla séddalee ñu wax Touba ànd ak Touba kanam ngir ñu yóbbu ko foofu loolu daanaka mooy solos li li ñoom ci seen biir ci biir li ñu tuddee ay stratégie bi sax na ay commission yoo xam ne liggéey biñ ci ndax dafa séparé ak Touba ca kanam bokkuñu ay compte bokkuñu ay numéro bokkuñu bokkuñu sax ay bureau ci gàttal Touba ca kanam moo ko juddule mënuñoo tàq tàq tàqali ko waaye nag liggéey bi li ci Touba ca di liggéeyaat ay bi moo koy dénk moo ko moo ko koy jox dénk ko bu ko dénkee ba mu war koo saytu it dana ko booleel booleel ak benn sous commission boo xam ne ñoom sëñ Mamour mii Mamour la ci mooy njiital scientifique et culturel sëriñ Mbacke Abdourahmane sama ginnaaw mooy euh, ki topp ci kilifa ak xay sariya bi sëriñ Ahmadou Mbacke mii moo jiite la ci wàllu fatwa yi nga xam ne war nañ koy def ci wàllu sariya ci mu aju ci wàllu asaka euh, yi nga xam ne dafa dañ ko xamutoon bu yàgg bu ñëwee ñoom danañ ci def ay études yu leer ba tënk ci document boo xam ne ñun ñi nekk ci gox bi sañatuñoo am laam-laamee ci ñaari xalaat Touba Kanam la sëriñ bi dénk ñoom biñ ñëwee ni ñuy tabaxee centre de santé jox ko ministère de la santé ba pare léegi bëgg a bokkaat ci saytu gi noonu loolu rek la lii dafa taxawal ngir yóbbu Touba Kanam diine ji mooy li li sëriñ Touba sànce woon dëkk bi moo cee jiitu amoon na ci daar am ci yëpp da cee bokk nag ponk ponk l'islam bii nga xam ne dafa xawoon a ndax say bokk ci gën a néew ci ngeen dégg ñu ci wax ci diine mu taxawalaat ko mu bëgg mu jot ci ndigal sëriñ bi ngir taxawalaat ko léegi nag da ko war a taxawalaat ba mu ne jëm mu delloo ko boroom xam-xam yi fi mu ne liñ ko ci jox rek la ci yore liñ ko ci jox nag mooy xëye idaara yi mooy direct direction bi doxal borom xam-xam yi ñoo dajale dénkaat kook ci ci réunion ci lu leer bu fekkoon ne dañ ko dénk keneen du ca man dara liñ ko dénkaat nag war koo doxal ñoom dañuy am sañ-sañu toujours samp ay kuréel yoo xam ne dañuy vérifier ndax liñ leen santoon ci ni sariha war a doxale asaka yi ñi ngi koy def wala déedéet ñoom loolu lañ ci yor ñu ay compte bokk responsable yi sax ñëw fi mu ne nii Touba ci kanam jël na ay nit ñoo xam ne ay jàngalekati diine yu mag lañ ñu yore administrateur bi spécial ñooñu kenn ci ñoo ñooñu doctoram mi ngi ko bind ci wàllu wàllu waqf ndax mbir mi asakal ak wax ñaar yëpp la boole doctoram mi ngi ko bind ci loolu même profil yi nga xam ne dañ koy sant dañ koy tànn sax profil yu yu sérieux lay doon yoo xam ne ay nit yi diine lañ yu ñëpp xam seen diine ak yu deme noonu waaw Touba ci kanam nag li leen ci xëy saraxiya bi sant mooy mooy li ñuy defaat mooy doxal gi doxal gi même bu leen sante bare du leen bàyyi ñu dem am na kuréel gu mu santaat ngir mu ñuy vérifier fi mu ne nii ñaari mbir mooy liggéeyam mooy e, dajale ak joxe asaka moom li ñu tuddee zakka ak li ñu tuddee waqf aw xaaf ñi nga xam ne dañoo bëgg a gas ay teen wala ñu bëgg tabax ay jàkk ngir bu ñu fi jógee mu nekk sadaxa jaariya wala ñu bëgg sax defar ay forage wala ñu bëgg tabax ay kër yoo xam ne dañ koy joxe ci yoon yàlla muy daara wala yu mel noonu kër gi mi ngi leen wax marhaban bikum boobaa kër gi dana loolu bokk na ci liggéeyam mooy mën a saytu loolu bu paree nag jox ko ñi ko yelloo ci ndimbalu Touba kanam ak transparence bi mu doxee ak itte ji nga xam ne ñëpp xame xam xam nañ ne gisaguñ ci mbootaay gu mel ne Touba kanam ci doxin ak ci jàpp jàppandal ci liggéey bi fii ci réew mi. lii lancement la pour tàmbali. mais tekkiwut ne lii fi ñu war a dem def fépp dem nañ fa xaajalugu ñoo dem fenn nit nag booy tàmbali da ngay doore ci sa biir kër waaye mbooleem luy kër diine ci dëkk bi ñi ñu bokkal diine ji moo xam suñu mbokk kilifay xaajar yi la wala kilifay tarixa tijaani yi wala yeneen kilifay diine yi nekk biir Sénégal yëpp fas nañ yéene wut ay commission yoo xam ne danañ dem ba toog ak ñoom wax leen liggéey bi ni mu demee xamal leen ne lii li tënk Touba ca kanam muy daayira murit bu nekk cib dëkk tënkut asaka asaka mbirum diine la ci fépp fépp fépp ci àdduna bi mooy kon euh, lu yaatu la loo xam ne fas nañu yéenee dem fépp tàllal leen seen loxo xamal leen liggéey bi ni lay doxee képp koo xam ne bëgg na asaka indi na wala mu daan joxe asaka amu ci ay ay xam-xam yu leer kuréel gi dana ko leeralal loolu ba pare bu bëggee joxe asakaam fam fam ko war continuer joxe sax amuñu ci benn jafe-jafe waaye bu bëggee nag euh, pourcentage bu mu bëgg a jox kër kër asaka yi dana ko téye ci tawfeex fu mu fu mu mënti jugee ci fi asaka war a jóge fu asaka war a jóge foofu nag ñeenti xaaj yëpp nag lañ wax mooy asakay kee ak asakay mbay ak asakay jur ak li ñuy tuddee asaka kii commerce di yaxamt ñeenti xaaj yooyu yëpp fi asaka war a jóge loolu la kër gi saytu